liggéeyoog koom aji gàddaay yi liggéey am na ay sartu liggéey yu bari yuy aar liggéeykat yi ci New York City sart yooyu ngir liggéeykat yépp la te duñu ci xool sa nekkinu gàddaay jàngal lu gën bari fii maanaam ci situ internet bii di https deux point www point nyc point gov slash site slash dca slash workers w o r k k a workers rights w o r k e r s r i g know tiret yoo tiret worker tiret rights point page ay tegtalu kaaraange aji jëfandikukat yi ngir aji gàddaay yi aji gàddaay yi dañuy jànkonte ak jafe-jafe yu bari ci liggéeyukaay yi ak ci dëkk bi jotal ay tegtal ci sa wàllu àq ak fan ngay jële ndimbal xoolal site internet bi di https deux point slash slash www nyc point gov slash site slash dca slash consumers con s u m e immigrants point page workforce one workforce one dafay dimbali waa New York ci këyitu sañ-sañu liggéey di leen waajal ak di leen jokkale ci jot ci seen liggéey ci biir dëkku New York ak ci bépp fànn koom koomu réew mi demal ci seetil sit bii di https deux point www point nyc point gov tiire site tiire sbs tiire careers c a e e tiire virtual virtual v i r t e page santaru dooleel koomu New York City NYS dafay joxe ay tegtalu mu teew mu teew nga teew boodul fay dara dafay joxe ay tegtalu mu teew nga teew boolul fay dara mëneef bi dafa ànd ak sutura te suñuy digalkat dañuy làkk ay làkk yu bari seetal fii ngir nga jàpp ab dig daje ci site internet bii di https deux point slash slash www point nyc point gov tiret sit dca tiret consumers tiret get free get tiret free tiret financial tiret counseling point page ngir am yeneen xibaar ci mëneefu dooleel ci wàllu koom wooteel ci 311 defar taxu New York NYC boo dul fay da boo dul fay maanaam NYC free tax prep su fekkee ne da nga am quatre-vingt-cinq mille dollars wala lu ko yées ci deux mille vingt-trois jëfandikool defar taxu NYC boo dul fay te nga nangu li ñu lay delloo ngir gën a am ay leeral seetil lii di site internet bii di https deux point slash slash www point nyc point gov tiret euh, slash site slash dca slash consumers slash file f i tire e tiret your taxes page ab numéro ràññeekaayu faykat faykatu tax maanaam individual taxpayer identification number maanaam ITIN nekk na ab numéro bu ñuy jëfandikoo ngir delloo la tax bu mënee fu payooru biir bu amerig maanaam US Internal Revenue Services mu di IRS di joxe ngir wàññi ak fay tax yi lii dafay dox ci nit ñi amul nationalité Amérique waaye wara fay ay tax ndax seeni payoor Amérique lay jóge danga war a bindu ngir ab ITIN su fekkee ni mënuñu la tànn ngir nimero kaaraange askan wala danga am payoor ci biir États-Unis te da nga war a dugal say tax ab ITIN du la may ab du may ab nit sañ-sañu liggéey ci biir Amérique du la may it ñu mën laa tànn ngir kaaraange askan walla ndàmpaayu Medicare wala soppi nekkinu gàddaayu nit yeneen leeral jàppandal na ci biir xarala yu yees yi boo demee ci site internetu https deux point slash slash www point nyc point gov slash site slash dca consumers slash file tire your tiret taxes tiret ITIN point page